maaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ñu ngi leen di bëggee di leen siyaar di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di ñaan di réew mi di Sénégal yàlla na suñu borom doole jàmm tey nag ñu am mbégte ci dalal euh, le président des Bongoman Ouzin Mbaye euh, mu xat lool nag mu xat lool émission bi daj naa ci lu ne pour jéem ko am parce que ku ne xam na ni artistes yi moom surtout moom weekend bi daanaka seen programme day xaw a occupé trop ñu ko ñaanal yàlla na yokk moom lañ fa yéenee waxtaanal tolluwaayam ci aar bi fas yéenee waxtaan ak moom lu bari loo xam ne gis nañ ko ci aar bi jamono ji fii lay xew ci people 221. waaw damay wax auzu billahi mina sheytaani rajim di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal samay ñaari waajur fa ñu nekk fii ñu jóge fa ñu nekk yàlla leen gënal képp kuñ fa fekk képp ku leen fekk di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wér ak bépp tarixa tiijaan laayan canaba canaba murit xaadar bàyyiwuma kenn mhm. di sant nag waa deux cent vingt et un mhm. bu baax di nuyu Jules Niang mi nga xam ni moom laa fekk ci tey ak jabaram mhm. fii ci kër Serigne Saliou pour defee fi émission bi ñuy sama genn wàll di sama lépp lépp ñooy sama ndeyjoor ñooy sama càmmoon moo tax ma bàyyi fépp ñëw ba fii ci kër Serigne Saliou defee fi émission bi. Mhm. maa ngi nuyu Sénégal di nuyu képp kuy bëggee Ouzin Mbaye di nuyu ñëpp. Mhm. di njël nuyoo Julien ak Fatou Kiné di nuy waa Ndar yëpp. Mhm. di leen ziar di leen bëggee. waaw bala ñoo ñëw ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi. Ouzin lan moo ko dugal ci aar dafa fekk ay maamam di woy. wala dafa fekk ay xaritam di woy wala dafa tëb rek sentir talaam di woy. ku juddoo ci daqaar yaroo ci daqaar màggee ci Dakar. kenn du la laaj forox ndox toll. ndeysaan. gaay géwal baay géwal maam géwal jarbaat géwal umpaañ géwal tante géwal bàjjen géwal jànq ba ca kër ga sax géwal lii ma dugal ci aar. Euh, est-ce que loolu tamit tax na tey nga jékki-jékki rek di woy danga ñëw jàngaat yokkaat sa expérience. Mhm. wala danga nga jékki rek sentir sa deret di woy c'est que loo doonul taalibeem doo doon sëriñam mhm. li may def dama ko jàng mhm. jàng naa nag ba CM2 waaye li ci des yëpp dama ko def aar sama carrière yëpp aar laa ko def mhm. macha allah jaar naa nag ci ay métiers yu ndaw a ndaw mais métier bu ma dem rek defuma fa deux jours <laughs> daa di daw aar daal moo ma ñor aar moo la ñor euh, tey ñu gis ni aar bi fi mu toll nii xale yi hmm. ku jug way xale yi ku jug taasu xale yi ku jug di bongo est tamit jotul yéen ñi nga xam ne yéen a yor association yi wala am nga ñu association boo xam ne da ñu former nga ñu tàggat xale yi. ñun amuñu sax association bay am association association sax bongomaan yi amuñu ko ndax dañoo dese bëggante ku ne sa bopp lay demal mais bu ñu jëloon lépp ñu jël kenn waxuma sax man ndax ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll. bu ju ñu jëloon lépp teg ko ci loxo kenn ñu def association defe naa ni bongo yi dina weesu fii. Mm-hmm. kon yow lan moo waral président bi. président de la république de toutes les bongomanes c'est moi qui a prévu le premier qui a joué les bongos sur les xew ba les bongos mel nii tey ci Sénégal Sénégal fal ma ko woteel ma Mbour Kaolack Ndar Saint-Louis Gabon Côte d'Ivoire Espagne New York États-Unis ñëpp te tuddeewu ma ko sam bopp dara wàdd njaag fara wàdd njaag yokku mi ci songum xeer moo ma ko njëkk a tuddee mhm. na ma la président de Bongo man ñëpp nag nangu ko mhm. voilà mhm. tey lan mooy taxawaayu Bongo man ci société comme koo xamante ni bu waxee nit ñi di ko challenge kooku ban taxawaay la war ci société nit ñeent yaru teey rafet jikko rafet kàddu ndax jaam bi bu meree dafa war a teeylu ànd ak i xelam te bañ a di gaawantu mhm. wax bal mhm. boo bëggee ñu wax wax dafa jooy ñu ne ko wax looy jooy mu ne damaa wax fuñ ma dañ maa wax fu ma fekkeewul mhm. wax kenn du ko mën da koy jékkun dañ ngeen ko dóor ko mbot mu dem ardo waxkat boo gis seen kër am na waxande wax bu juree doom nu muy tudd yow laay laaj non man kay déglu boo bëggee déglu ñu ñu ngay wax ñu lay déglu sa kàddu day rafet mm-hmm. sa waxin day rafet mm-hmm. sa jëfin day rafet ku la tooñ sax nga baal ko mm-hmm. lii ci seen biir métier damay ñëw xuus directement ci métier bi parce que xaw nga xat tey ñu gis ne souvent da nga ñuy ay programme muy ay bongo ci xew yi est-ce que tey du mosoo leen ci dund genre pièce boo xamante da ngay ñëw xew aaw ak ñaareel. Mm-hmm. ñii far ak yow ñee aaw ba maanaam ni ma la ko mën a expliquer aaw bi ni man man ngay àndal. Mm-hmm. ñaareel ba ni la mën ngay àndal. mais loolu bu amee yaa yeewu ndax aaw ak bokk jëkkër benn jëkkër aaw ak ñaareel ak ñetteel ak ñeenteel ñoo bokk kenn ki leen bëgg kon da ñëw way aawa bi way ñaareel bi ne leen aawo ak ñaareel ñoo bokk li nu bëgg dara. ndax kii bu amee deux jours kii day am deux jours damay faral naan boo amee ñaar joxel kële ñaar du moo war ni aawoo ak ñaareel ñoo bokk jëkkër xolal ma ne aawa dafa wàcc ñaareel yéeg ñetteel wàccum liggéey ñu di ko jaale ñeenteel dee ku ne boppam laatal ren jii ñoom ñeenta aaye. <laughs> loolu da kenn ci mer. déedéet. <laughs> Eh, est-ce que tey. nga ñëw ci benn xew. jàkkaarloog nit di ko woy. est loolu yomb na da ngeen koy programmer wala da ngay sentir loo neex rek di ko wax. non nit ku nekk noo koy wayee comme ngay way ko sant Ndiaye way ko sant sàmb way ko sant Diouf way ko sant Ñang way ko sant faal mhm. boo nee faal da naan faal ma déggeen demba ak ñaxana faal mi ñu boole woon ak faru ak njandee ah, loolu maa moom ah. faal mi yàlla faale fal ko mu doon buuri jaam ni hmm. jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall lamp ngeneel yi yàlla taal leeral na réew mi mooy Kamal. Hmm. sant Mbàkke ca gën mbaa Fall. ndeysaan <laughs> euh, tey. Mhm. Euh, ñu gis ni jamono ji aar bi xaw na xaw xaw na yëngu. Hmm. ñu bari sax nawlootuñu ay bungo maan ndax li nga xam ne jot na fee xew. Euh,

ndax lii da leen di tere dugg kër yu bari da leen di yàqal seen métier da leen di yàqal seen der man de ma am milliard sama ginnaaw ma am dërëm sama ginnaaw rafet moo ma gënal ma am milliard sama ginnaaw rafetul mhm. nañu ñaan suñu ginnaaw rafet mhm. lépp lu ñuy waxati wax bal la mhm. looy waxati nga xam ko ñoom de ñoom ñëpp duma ci ne kenn lii la kenn lee la mais man xam nga lan laay bañ nay nooy cadre day nay nooy boobu noonu aar bi dafa bongo dafa war a nooy. wala wala wala dafa war a dëgër. bongo bi day dëgër këk kenn du ko fi nooyal ku ko fi nooyal ma tëb tëb tëbati lëndëm jooloo li isa damada yëkkatil tam-tamal na ko ci buyo dama yeggali de. <laughs> bu yeggali kenn nooy ku fi nooy ma xeex ak nay dëgër. dafa war a dëgër kët dañu naan fii dëgër naam kën-kën est-ce que dëgër naa mm-hmm. xanaa ma ndiir ba jox xanaa xanaa dara du fi nooy fii sénégalais yi bëgguñu lu nooy dëkk bi bëgguñu lu nooy suñu société day tere lu nooy waxuma nag kenn nooy mhm. waaye ku fi taxawati na nooy nooy ma porte la plainte mais moo tax tey Bongo Man xoolal tey nga ñëw fekk Ouzin Mbaye dafa jantal Sylvie Seye Sylvie Seye mais góor yàlla mais lan moo tax tey ñu gis Bongo Man ñii di xeesal fii ñii di rosa fii léegi loolu noonu lan moo koy waral ñi leen di jaay dafa am géer ñu seytaane mhm. dafa am géer yu rambaaj du ñëpp dafa am géer ñoo xamante ni boo toggul seeni biir naat di nettali kaa wala diw a def lii wala róosaloo tuñ wala xeesaloo ba wex tàll duñ la teral tuñu kóor daa war a ñuul ko boo xeesee sa baay xees war ngaa mën a xees waaye jékki-jékki ne man damaa jékki-jékki xees fu mu am mhm. tuñu góor day ñuul góor da ngay jantal ñuul say kàddu ku ko dégg xam ne góor yàlla nga mm-hmm. aar bu la jaral nga changé sa dara mm-hmm. man bu ma doon am milliard je serai Ouzin Mbaye chaque jour mm-hmm. fii ni ñëw tey doxul ci ay bongo doxul ci ay mbumbaay gëmul ko dul Serigne Saliou borom nduruñ borom jàppandal borom xel comme que woon que muuru woon ki nëbb te yër jëmmi nit góor gi xàbbaabal koll yi diisal poos yi niinal bool yi Serigne Saliou Mbacké rek la gëm du déglu musique waaye man daf maa bëgg ngir sama jikko mook jabaram Fatou Kiné ndeysaan tournel jëlal ma Serigne Saliou bi tournel jël ko gëmuñu ku dul Serigne Saliou tournel jël ko daan doole doxul ci daray zaayir ndeysaan bañ nañ ko ba képp kuy tagg yaa rasulillahi képp kuy sikkat fii ngay fréquenté Modou Galas Mbaye du ma lim bu ma limee mun naa juum ndeysaan tous les bongo man bi Sénégal man rek maa fiy dugg def fi émission bu doon keneen la danaan la door fu ka danaan la fumal ka <laughs> waaye man saa bu ma ñëwee mu yaatal yow sa caméraman bay mi ngi dee de <laughs> xam nga art c'est une vieille tradition ludique il est euh, revenu au bout du jour art dafa yaatu boo ko mënee na nga ko fonk art daw nay caaxaan mhm. bokk na lii leeral dinuyaa mbasa mënal teralalal mbax léeg-léeg nga gis ku mbax ba teral yaay waaye léeg-léeg nga gis ku mbax ba teral baay jot na ma ubbi benn groupe whatsapp mhm. tous les bongo man di Sénégal ma dugal leen ci mhm. ñu waxtaan jéem a changé idée bi ndax aar lu nooy di ko def day dëgër kët ndax man maay Samba Sagna maa dëkk Sénégal ñeme lu metti maa soccoo courant gallax ndi ku ko nar yàq je la porte plainte cour de la xeelaa la yóbbu ndax duñ ko liggéey ba heure bii ak xale yi mujjee ñëw man liggéey naa 2001 ba heure bii may bongo kenn musuma teg sama der lu ñaaw musuma fee def lu ñaaw mm-hmm. musuma fee wax lu ñaaw mais xale yi ñëw tey lu leen sonnal nga bëgg bës yàlla bañ nga bëgg bës yàlla bañ mayal sa noon yi ndox mar na noon naan kopp doyu leen kaas doyu leen yóbbu leen génn bës jaral na leen ñu rey seen bopp bës jaral na leen ñu def ay sacrifice te bu ñu xamoon li ci siiw bu ñu xamoon li ci siiw bu ñu xamoon li ci siiw barke alxuraanu karim dinañ rek le ma leen ñaanaat fii ngeen ñu fekk munu leen ñoo jaay lu ñu amul li bëy lekk di ñammi-ñammi lay lekk na ko nag taj micro bi li bëy lekk ñammi-ñammi nag lekk na ko nag taj ñun suur nañ démb tey doog a ñëw. Mhm. benn jour dama ci doon dem quatre cinq six sept programme fu ma dem dama naan la quinze minutes laa fay am léegi da ngay gis nit yu ko dugal estati ne direction Maris direction Guédiawaay direction Parcelles direction Pikine mun fa nekk xew bu dee dañ lay fay rek géer ñi buñ la fayee yaay toog loo dem fenn ñu ci bari kenn du leen engagé dañuy wari xew. bu ñu waxee ñu ne benn jour dem naa ci fukki xew wala juus daa mën na de. benn jour benn xew nga ci dem wala ñaar. Mhm. ñu fay la. Mhm. mais mënoo ci dem fukki xew parce que ça veut dire ne kenn du la fay nit ki nag bu ñu lay fay da ngay régler. Mhm. da ngay régler. xam yaay kan gëm sa bopp respecte géer ñi. géer ñi bu ñu la fayee seen xaalis tourné gisuñu la seen xew femme bi jóge saloon est-ce que dinañ la fay. non non. kon ñu ci bari duñ leen fay. nañu teeyaat. mais tey mais tey est-ce que bi loolu xewee yéen ñi nga xam ne yéen seen i mag woo ngeen leen waxtaan ak ñoom ni leen carrément nii ngeen war a def ak nee ngeen war a def. bongo maa ni ñoo bëggantewul koo ci woo sax muy rëy rëy. Mm-hmm. ah man la diw ah te tojjuñu fenn boo demee Grand ndakaar gi xamuñu leen xamuñu leen man mii sax am na ñu bari ñu ma xamul. Ousseyn Mbaye du ma jaay sam bopp du ma jaay sam bopp tojuma fenn aw ma leen bu wane wu ñan ñoo war a wanewu ci aar wanewuñ ko Youssou Ndour je suis le Youssou Ndour dee bongo man mhm. booy wax waykat sax danga may teggi doog a wax waykat mhm. ndax damaa jóg liggéey ba bari la am xaalis jël barkeel le jël xaalis ubbi télé indi ko ci réew mi teg gars yi ne ma doo ko taal TFM doo ko taal pexeb yàlla ëpp na pexeb jàmm fa yàllay defaree yàqkat yeggu fa fa yàllay fasoo jëf ci nit yu rëy du ko diisoo da koy jëf ñu xëy fekk ko fa ndongole nduur ki yasar Sénégal ndongole bongo ngi nii kenn du ma boole seen yooyu ñoom da ngay tudd bongo maan da nga may génnee ba pare doog a tudd bongo maan mhm. ndax je suis le Youssou Ndour des bongo maan le président de la république mhm. de toutes les bongo maan mhm. bëgg bongo taxut a mën a bongo bongo maa ko moom leket ci suuf bant ci kaw laam ci diggante bi ak feer foog nga wuti ngaccar fu ñu dem démb ñoom fi ñu dem tey dem nañ fa démb ba tey ñu ngi fay dem. Mhm. bongo maan yi yëpp ngay gis 2001 boo ci génnee seeni at lu ciy des. du bëri ay booy lañ. Mhm. kon ñu lekk nañ lu ne. Mhm. gis nañ te boobu bongo da koy yor sax ñu la ñu wër la. léegi ñoom nag ñëw yàqat bongo pëlëfuta yi di bongo <laughs> soose yi di bongo mandinke yi chinois yi japonais yi kurum kurum yi mancañaan yi. ku ne ñëw yàq suñu bongo yi roosal tuñ xeesal kenn xamul seen kanam yi ne kur dañu chinois nañ rek hmm. te xam ne aar du xeesal ay affaires yu bon aar tey la solucé hmm. gëm sa bopp hmm. ñun danoo yor njaboot yor ay doom yor soxna ëllëg xale yi ñëw ñun la seetaan ci tele bi ñun lañuy ñuy seetaan ci tiktok bi kon on va donner le bon exemple mhm. ñun ñoo war a joxe bon exemple yiiwal suñu solu yiiw suñu kàddu yiiw suñu comportement yiw mais mhm. takk fi jaaro takk fii jaaro bënn fii bënn fii ci góor c'est honte daanaka euh, li ñu mayoon waxtu ñu ngi may signaler ni jeex na te da nga am ay programme yoo war a dem mm. nga may ñu ci sa temps tey lan nga gis ni war nañ koo defaraat ci aar bi luñ ci war a yokkoo luñ ci war a wàññi nay nooy dañ ko war a wàññi. nay nooy <laughs> nay nooy de dinañu bàyyi. mais nay nooy daa mel ni ñoom la xale bu bëgg de. nay nooy Sénégal yëpp a ngi kaas interdit nañ leen banlieue léegi yàqaluñu suñu bopp ñoom. <laughs> waa banlieue nee nañ ku fa buggati nay nooy ñu tëbal <laughs> léegi ñoom yàqaluñu seen bopp léegi Grand Dakar mënuñu jóg Maris mënuñu jóg na nay nooy dootu fi dugg nga dugg ñu ne eh nay nooy a ngi ci xewu diw de. <laughs> ñu fekk ni mag paap la ci réew mi. nay nooy. waaw dara du fi nooy. mais <laughs> ko yóbbu. mu gis xaalis bi bari. maa ngi nuyu madame Diawo. ndeysaan ak baax passage. Mhm. di nuyu Bad Diawo. Mhm. di nuyu seex yi. maam booy Diawo c'est mon ami. ndeysaan. ci télé laay wax man rek. micro bi micro bi ndeysaan. maam Diop booy Diawo. lii fu ne lay dem dina ko seetaan. Mhm. man rek la bëgg. ba ma koy xam maam booy du lii. falaguñ ko lii yëpp. may ñëw këram fii ci. Euh, euh, liberté 3. Mm-hmm. di ko fa fekk. Mm-hmm. su ma ñëwee na takk leen xaj yi. Mm-hmm. mu yoroon 45 berger allemand kenn du dugg ci kër gi. ay doberman <laughs> su ma ñëwee na ko takkal xaj yi. kon kooku maag moom yàgg na. ndeysaan su ma ñëwee këram nii lañ may defal. Badou Diaw sama nami. ndeysaan may nuyu Nabou madame Camara. di sëy ak rakk mam booy Diaw. di wax ni Sénégal yal na jàmm yàgg. yal na jàmm yàgg. Mhm. yal na jàmm sax. Mhm. mais lan moo ah. xewoon foofu. xew la woon xew Badou Diawa moo doon génte. moo doon génte doomu Youssou Ndour. Mhm. Pape la xaalis bi bari rek mu ne ma balaa ngay sedd gaa kaayaw. kaay gis ma ba pare. ma ne ko yow Pape la ko la yow. ni ma naan nii rek mu ne ma bi ñarax ku <laughs> waaye bi ma ko këddee xam nga ku tali boobu autoroute bi la. bi ma ko këddee. <laughs> bi ko bu ko gaa yi jàppaloon autoroute ba lay tartar mëkk du ko bi jaan mu dal ca ca ba gaa yi jàpp ko. foofu daal dëgër. waaw du ma dóor te du ma fay. Mhm. ma créé ko way Pape Laxadut lan la la def. mu lëmbe réew mi. Mhm. yooyu yëpp ay stratégie la. Mhm. j'étais une permet d'organiser dans tous les établissements de la région de Dakar. des manifestations culturelles et théâtrales. Waly Seck daf ma gis bërki démb ci télé laay wax na ma Ouzin yaa ngi fàttaliku bi may ñëw bi ngay ñëw suñu classe di théâtre mhm. école point 1 2 maag moom yi ñu bokkoon classe mu mhm. ne ko Waly yaa ngi wax yu lu yàgg te musuma xam ni Waly mhm. point 1 2 la jàngee mu ne ma yaa doon ñëw suñu classe di théâtre man ak yow démb la tey doog a ñëw ma amoon trois pièces théâtre yu ma doon joué si école yi bon élève et le mauvais élève comportement d'un élève. pour mmh. atteindre son objectif e son but. dëgg li deuxième théâtre xale bu nangu jàng ak xale bu nanguwul jàng le bon élève et le mauvais élève. Hmm. le bon élève da nga ko quels sont les quatre points cardinaux mu ne la l'est l'ouest le nord e le sud. ndeysaan le mauvais élève. quels sont les quatre points cardinaux mu ne la le ndong le forondong le piétondong le dor. loolu wax créé. maa ko créé. observation l'air bon élève ne l'air est invisible on ne le voit pas nilaar bi ñëw qu'est-ce que c'est l'air mu ne monsieur sama yaay day leeral kooku moo bon c'est un mauvais élève billaahi <laughs> ndeysaan kii dina xam ne yow. Eh, cameraman bi xanaa <laughs> euh, voilà euh, émission bi neex na trop <laughs> Ouzin moom xam naa ne lii day mujj moom il fallait que ma def vingt quatre heures. Euh, ci moom tey lan ngay tàggatoo ak ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñooy xale yi doog a dugg ci aar bi. li may tàggatoo mooy maa ngi sant Sénégal yëpp xam naa fi ma teg. Mm-hmm. xam naa ni bëgg nañ ma wóolu nañ ma. Mm-hmm. am na fu ma teg. Mm-hmm. li ma fi def rek wane ne sësuma kase si bongo. damay tëgg sabar mhm. damay théâtre jaar naa ci simb te mhm. doon raxan mhm. aar dafa yaatu may wax bongo maan yi leen dara jaral ngeen changé seen judd da am nday yu baax am baay yu baax nekk ci ay famille nga am milliard sa ginnaaw ñaaw baaxul bu ci am dara mais na sa ginnaaw rafet ëllëg dañ fiy jógee àdduna yàggul lu nit di def rek na seetaan million tuddul million gars yi ñu ngi koy wax naan meloo woon nii la tudd je suis pas d'accord nii laa meloon. Mhm. parce que million bu ma changé. Mhm. million bu nekk ci aar bi may nañ ma lu ne dem naa fu ne gis naa ku ne dugg naa kër bu ne te du ma mhm. mus a changé. yi laay kafal xale yi laay ko foowal foo ma gis xale ya may tardel lu ma yor nit ñee ko bàyyi sama loxo. giir ñi ñuy may maa leen dàq barke alxuraan. ndeysaan. ñeme naa yor un milliard may la ko. billaahi. lu ma sol tey maya ko. ba tey may sutura. Mm-hmm, mm-hmm. may gërëm Sénégalais mm-hmm. di gërëm sama waa kër di gërëm sama soxna di gërëm sama goro. ndeysaan waaye émission bi li muy rëy rëy rëy yëpp. ko may ak Julien. ñooñu ñoo jàpp si samay fan. bu rafet. parfum bu neex. tissu yu baax. ay ñaw yoo xamante ni ay prêt à porter. mais mais vous service commercial nga ne de. prêt à porter damay publicité. <laughs> mais service commercial nga daal de. service commercial dañ ma koy may. xoolal lii xoolal lii boo yàkkamtee am takk wala mariage xoolal lii ma lii ci fàtki ne série Gilles Niang kër Serigne Saliou Mbacké kaay sañse xoolal façon tissu brodé. voile. mais Fatou Kiné faa Fatou Kiné faa ma ñëw seen commercial de ñaw parfum parfum <laughs> classe. waaw jël bi ah. ndeysaan. parfum classe yoo xamante ni barke alxuraan foo ko tuuroo. Mm, surtout tàngaay bi ci mën ci man. surtout tàngaay bi. surtout tàngaay bi. Mm-hmm. mu bari jom loon. Mm-hmm. teel la am ambition. Mm-hmm. jàppale jëkkëram mook jëkkëram àjjumal ak samedi la soow ak suukar. bés doxul seen diggante. sotti suukar. sotti saar sotti naan mbaa sotti tuur. Fatou Kiné ku mu sëkkal teraanga xam na sa ngor yaa yewen gore. ndeysaan. di nga dégg maa la mag waaye doo dégg maa la gën fàtki ne jiitu nga leen sànni karawaas gi daan leen jël buñ dootul mi mbàkk woo damm woo yaa yeween gore jëkkër dalay boot nga ne nongu sa dara du wadd julien dalaa boot nga ne nongu sa dara waddul jigéen bu ay war a fale matee tuddatul jigéen jigéen nga ndax teel a xëy guddee wàcc bu goy daray góor fajar nga koy fekk fii guddi lay wàcc ndeysaan si ay xale beneen atelier bi bi ci topp ay téléphone lay jaay. Mhm. fa lay chargé dañoo may ay téléphone iPhone. bërki démb lañ fi kàmbur yàlla sàcc ñu sàcc wu rëy <laughs> ki ñu sàcc yal nañu yàlla àtte ci barke Serigne Touba mu mhm. bàyyi lépp mu sedd. Mhm. lépp ne bàyyi naa lépp. ki ko def jéggal naa ko te yàlla tax. plus vingt quatre millions. yaa ilaha illallah. waaye léegi nag on a des grandes sécurités. am nañ ñooñu nuñ tudd mbër yooyu. nervi on a vingt neuf nervi yi ici <laughs> guddi bëccëg gis nga leen ñu ngi nee toog nervi yi bëccëg sax dañuy toog vingt neuf nervi la ñu indi. kenn dootu ko sàccati. te ah illah illah illah ku fi sàccati dootoo sàcc may gërëmaat Sénégalais yi. Hmm. di gërëm waa vingt kii. Euh, euh, People 221. People 221. Hmm. ñoo mujjee ñëw waaye ñoo gën a neex ñooy Samba Sagna. ndeysaan. macha allah lu nu tegul baaxul. may wax man Ouzin Mbaye maa ngi ci people 221 ba mu neex. ndeysaan bongo maan yi nañ leen bokk ndey bokk bàyyi. Mhm. na dëgër. Mhm. këpp. Mhm. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taalaa barakaatu.